madame la ministre dañu nekk ci réew moo xamee ni wolof dafay faral di wax ni kenn bëggul ku la gën waaye ku nekk bëgg nga jur doom mu gën la kenn bëggul ku la mujje àddina waaye ku nekk bu doon say sago say doom mujje la àddina kon nekk société boo xamee ni gis-gisam ak taxawaayam ci àddina dëgg la ñun ñëpp ay valeur la réew yëpp di dox waaye sañ nañu suñu société am na ay valeur propre gis-gis boppam ak taxaway bopam ndax fi ci Sénégal gi lañuy wax dom ja ndey ja donc bépp xalat bu ñuy am ak développement bu ñu mën am bu fekkente ni ci tambalé ba centré wuñu ko ci xalé yi ak jigéen ñi développement bobu du mëna nek du sotti du dem tay sama wax ak yow li bëgg moy ñu analyser situation wu Sénégal ak environnement international bi ak li nga xamé mom la àddina japp ni ñom moy société est-ce que ñun ni nit ñi gisee ni noonu la famille war a demee ci àddina ni Occident gisee ni noonu lañu war a organiser cëru baay cëru ndey ak cëru doom ci biir famille est-ce que valeur yooyu nga xamee ni dafa jóge ci cataclysme bi nga xamee ni dafa nekk après la seconde guerre mondiale nga xamee ni l'inhumanité de la personne humaine dugal nañu ci ay jëf yoo xamee ni jégg na dayoo est-ce que valeur yooyu lépp lañ ci war a jël wala boog dañoo war a am sañ-sañ ak courage bañ a complexé

suñu leen bàyyee ñu am ko ndax fulla weesuwul nga ñëw ba ci biir réewum jaamur ñëw jox xar bi président ba di ko laaj ci loo xamee ni démb ak bërki démb mi ngi woon si suñu biir réew ñu koy dund ci fa ci ci ci sutura te dara mosu fee ñaaw ndax góor jigéen judduwul tey jii ci Sénégal lu fi yàgg la mais mosuta doon problème ci ni nga xamee moom la ñuy dundee yenn taxawaay yi nga xamee nag koo xamee ne raw la ci wàllu gis-gisu àddina

ñu ngi nekk ci diggante bi jël ay valeurs occidentales yenn yu am maanaa la dugal ko ci suñu corpus juridique jël yenn yi nga xamé ne ay yoo tubab lu bees la ba paré nak li ñuy dund mu xawoo nek nekk mel na dafa fété bor de telle sorte que ni hiatus bobu am entre la pratique bi nit ñi di dundé ci biir réew mi ak li nga xamé ne moy loi yu joggé bitim réew mo ñu yóbbee problème bi depuis 1972 biñu voté la la loi portant code de la famille ba léegi évaluation bu sérieuse defuñu ko si te ab société dafa war am courage nangu taxaw ni ban société la bëgg ban famille la am nan la yéré sama dom ku mu neex ku mu nakari bu ci sénégalais yi djubo li ci des yépp c'est du dérisoire lu amul ben njariñ la et je pense qu'à ce niveau-là il est extrêmement important madame la ministre que li nga xamee ne moom def dispositif yi jëm ci encadrement si sëriñu daara yi ñu yokk ni ku nekk xam nga ni nga yare sa doom bu doon sa sago di nga yar xale bi te doo ko dóor doo ko gaañ bu si sëriñ ci yeggulee c'est que outil moderne yi nga xam ne moom la ñuy yare xale yi dafa yeggul si ñoom alors le ministre dafa war a commencer di def ay séminaire jëm ci sëriñu daara yi di leen wan nan la pédagogie moderne di évoluer nan la ñu mën a yare xale bi def ci moom alxuraan te du ko tax nga def ci moom yenn yi parce que c'est ça la modernité et c'est ça l'avancement